nekk ci décompte bi jaajëf mbokk yi Sénégal mbokki 2STV yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen bëggee di am mbégte ak kontaante di jàkkaarloo ak yéen ci la 2STV yi di jàkkaarloo ak yéen ci 12 13 tey damaa yaru parce que Sénégal Sénégal dafa ko quoi Sénégal dafa metti ah ngay xëy léeg-léeg doo am paas pour liggéey. yooyu yëpp dalay arrivé am na fi ñu amul paas woomo ma moo envoyé ma xaalis ma envoyé leen ñu paas ñëw bu ñëwee si télé bi duñ ma respecté quoi Sénégal après ñu xoolaat rek naka la ñuy def gën a waxtaan ngir après paas di mat gars yi di am paas xam nga en grand cheikh da si baax gars yi di am paas xam nga vraiment di mën a liggéey si ñu ngi leen nuyu Baye Fall siyaar naa de. maa lay bëggee <laughs> kontaan ci yow mbokk yi mbokk yi seetaan 12 ñu ngi leen di bëggee waat bu baax a baax di bokk ak euh, Sénégal yëpp naqar bi nga xamante ne ni xëyee nañ ko muy tiis bu doy waar dal ci askanu làmb muy suñu papa Moussa ñing booy kiri Fass yàlla suñu borom da ko jël mu nekk loo xamante ne ni lu metti la ñu koy jaale njabootam di ko jaale waa làmb di ko jaale waa écurie Fass di ko jaale waa Sénégal parce que Sénégal ñoo ñàkk Moussa Gningue moom Sénégal ñoo ñàkk Moussa Gningue moom du du du làmb rek ñoo ñàkk du waa Fass rek ñoo ñàkk Sénégal ñëpp ñoo ko ñàkk parce que c'était un sportif nit la woon boo xamante ne bu doon waxtaan ci cadre sport en général la doon waxtaanee macha allah nit kooku tey su demee dañ koy dafay métti ci ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom xare ko àjjana ñu koy ñaanal yàlla sunu borom yeesali yërmande ci kawam jéggal ko xare ko àjjana ci bark Seydina Mohamed bégewaat nañ leen bu baax a baax loolu moo doon nuyoo bi tey 12 13 mbokk yi comme ni koy defee mardi bu jot rek dinañ fi wax ci tàggat yaram Fatima Silla dina fi jaar ñu waxtaanee loo am solo ñu waxtaanee loo xamante ni nii man la sam waaye sama pause bi. coach nii la ah. bi mool na. nga am garde garde garde xam ngeen waxu garde buñ koy wax kon c'est-à-dire tey boxe la ñuy waxtaanee Fatima dina fi ñëw ak coachu Jabon kooku sama xarit la bi may def boxe formation moom moo ma njëkk a jox prothèse dent ne ma solal maa ngi lay bégee bu baax a baax fii la ko joxe woon ci 2STV ci tutela la ma ko joxe woon maa ngi koy bégee bu baax a baax coach Jabon waaye dañuy laaj damay ñaan clip ah ma ñaan clip may leen ma clip may leen ma clip may leen ma clip may ma clip lala man kan man sit man ak estati yi Sénégal dañuy xëy def ay statut site internet yi rey Pa Moussa Gningue nag yéen moom bu yow nga xam yéen doo gudd fan da ngeen dee yéen yéen yéenay dee yéen parce que yéen fajar teel gi ngeen xëy reyal ñu kii nga xamante ni ñun ñun dañ koo soxla kii nga xamante ni ñun tey jii bu làmb tolle fii moom moo ko liggéey ba mu yegg si fii kii nga xamante ni nii tey jii écurie Fass fii mu yegg si Moussa Gningue la ngeen xëy fajar teel rey ko nii te Moussa Gningue deewul ah man de pare naa ci internet yi man barki yonent bi pare naa ci site internet bi ngeen wax loo ma penalty bi ma toog ci dëkk bi fii tàgge Moussa Gningue te Moussa Gningue deewul site internet yi yéen a def lii ba pare sax man penalty bu rëy bi ma njëkk def man mooy lu tax woowu ma sam papa man laaj ko parce que man information bu ma mus a jaaxal ci làmb sam papa laay woo laaj ko damaa rus moo tax ma toog maa ngi ñàkk gis ngeen ma damay rus te man su ma damay ñaq da da da damay dër yooyu yëpp laay boole ñaq ak dër lii ñaaw na site internet yi vraiment Macky Sall liggéeyul <laughs> ci côté site yi moom Macky liggéeyu ci parce que côté site yi mais waaw parce que site yi dañoo war di joxe ay information yu crédible dafa am loo xamante ne ni dafa ñaaw xam nga tey ji émission bu toll ni douze treize àdduna ñëpp koy seetaan émission bu toll ni 12 13 Sénégal ñëpp ko bëgg fi mu toll appel yi fu ne la jógee bi ma waxee wax bi bi ma waxee ci waxu Père Moussa ñu ngi àdduna ñëpp ma woo fi mu toll fii bi clip bi duggee ñëpp woote nañ fi waa Palais waa assemblée nationale ak ñëpp woote jaaxle Père Moussa ñu ngi nag maa gaa yi joxoon information bi musta dee Père Moussa ñu ngi Père ah, xam ngeen day dund 111 ans. Père Moussa Gningue man leer na ma ni yàlla na la yàlla may gudd fan ak wér nga dund 111 ans ci barke Seydina Mohamed jeex na sax léegi sa wax bi jeex na waxu Père Moussa Gningue jeex na léegi c'est bon Père Moussa Gningue deewul deewul c'est fini te ku fi woote waat naan Père Moussa dee na si tuuti rek am na lu bees am na lu ñu leen ciy waajal ci loolu pour gën leen leeral ni deewul MLK merci bëggee Roqoya sonnoon na am na problème yow nag moom yaa ngi ree bu yeboo nga xam doo yéeg tey comme que yow tey noonu nga ma def doo yéeg de léegi pare nañ ah pare nañ ci kaaboom boobu léegi ñu song beneen kaa xanaa fi mooy douze treize fii lu fi leerul ñoo koy leeral man leeru ma woon dama ko loon wax pour mu leer ma léegi leer na ma man dama doon wax rek pour am ci lu ma leer wax naa ko mi ngi mel ni kaaw Estade Demba Diop ba rek bañ ñee dañ koy luye <laughs> ndeke luye wuñ ko mais daal da lépp rafet rek fii c'est beneen cas bi ñuy waxtaanee tey mbokk yi mooy téléphone téléphone am na ku nekk si ligne bi allo allo. allo waaw. papa. maa ngi siyaar de. ngi lay siyaare bu baax a baax. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. ah sama xarit ma dama laa bëgg barke Sëriñ Tuuba. maa la raw. di laawa laawa taa du ma la gisee rek dafay mel ne maa jàkkaarloog sa papa barke Sëriñ Tuuba. ndeysaan yaa baax sama xol sedd si yow. bilaahi. yow la kan. man ñoo koy wax Mbaye Gueye. Dakar di roog Père Moussa ñu ngi baat. <laughs> dëgg la kay <laughs> mais grand. waaw. mais sànq mooy clip bi ngeen mujjee teg Abdourahmane. trahir bi. ab Abdourahmane. waa trahir bi du ma la trahir. waaw. waaw mais noonu grand. Abdou Rass di ndaanaan. ma ne a ngi noonu Abdou moom. ndaanaan bu mag. kooku duma ma sañoon nga dem ba fa dëkk sa Jurbel dem gëstu ko. billaahi. incha allah dinaa ko def. bu neexee bilaa walaay bu neexee yàlla bul jaaxle. billaahi. incha allah man kii pour man père Moussa Gningue la sax kii tamit vraiment muy wax wax Abdouraas kii sama ñii sama émission tey bi nag yàq ngeen ko si internet bi yow nga xam yàq ngeen sama émission bi li ma li leen yàlla na leen sama àq dal ko su jamono yaa ngi Fatima ñëw leen ñu taf tafee affaire gaaw plus vite Moussa Gningue deewul deewaanul père Moussa Gningue mi il est en ku nekk si ligne bi allo allo eh yow allo ñu ngi siyaare kookal la. ah naka mu. sant yàlla yow la kan. xaadim Touré. xaadim yow loo wax ci si gi xëy fajar tel rey Moussa ñu ngi nii. ah man de Sénégal dama waar. man jommi naa man. Sénégal Sénégal li ñuy def baaxul. kenn du ko def non lii kenn du ko def baaxul. Ah, xala xala dugal leen dugal leen leen sa bato bi de. Ah, lii de ñaaw na. vraiment man de ñaawlu naa ko quoi. ñëpp ko ñaawlu billaay ñëpp ko ñaawlu. adduna adduna jarul jarul dara. dëgg la de. rek. dëgg la de. waaw pour am ay vues wala pour am xaalis jaru ngay rey doomu jàmbur papay jàmbur. vraiment. te nga xam ne da am bay bu nga bàyyi kër ga. waaw. ah man de seen rakk laa maa leen gën a ndaw de man may woote di leen xelal parce que ñoom muusuñu adduna du dara. dëgg la. waaw mais nay rafet rek. kontaan nañ ci yow. ok ñoo far. jaajëf. ok. jaajëf gars yi leen ma téléphone bi tuuti ñu waxtaan Fatima ñu ngi lay bëggee bu baax a baax ñu ngi lay dalal ci. Eh, yow Mbara coupé ngay yow mbarak bu ba moytu rek Fatima bisimilah nuyoon. mu mu lan la ñax Fatima parce que site internet yi ñoo ma trompé. mu ñax nga ñoo fi joxe information bu baaxul ma ñëw wax ko. te man xam nga man dama man damay nelaw ba dix heures et demi onze heures. loolu nag du ma yëg lu xew. Mhm. dama yeewu rek juba si télé bi mais garaawul. mais xam nga xam nga xam nga man journaliste la mënu ma euh, frôler noonu bañ a wax. ci kon doo laal ci laal ci. que dafa am xamante ne tamit jaaduwul parce que dee dafa doon loo xam ne dafa rëy. nit ki di tëdd këram di nelaw nga jékki-jékki gis ko ci site internet yi décédé na nga gis nit ñi di ko statut tout le monde en parlait ah depuis ce matin léegi man dama ñëw léegi bi ko joxee information pour man sax yow tamit loolu am nga ci information mais da ngay nit ñi en erreur ñu dugg fii wax ko on est am na yenn yoo xam ne balaa nga koy publier da ko war a xool ko eh, xoolaat ko saytu journaliste ñooñ duñu ay journaliste doy na waar quoi doy na waar ay protège dans la yoraan. Ah. ah kon box la ah box. box la ah? waaw damay bàyyi sama invité mu nuyoo ak téléspectateurs yi. maa ngi nuyu waa Sénégal. Mhm. donc du nuyu sama mbokk diaspora bi. Mhm. donc du nuyu euh, sama invité yi. jaajëf ah donc di nuyu aussi euh, euh, sama mbokk yi. Mhm. donc ñi nekk Darou Mousti ah donc sama sëñ sama xarit sëñ Cheikhouna Mbacké bu sëñ Fallou. Oh. donc yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wër. amiin di nuyu waa Simalik ah di leen ziar. donc du nuyu ñëpp di bëggee ñëpp. Euh, ñu ngi lay ah. dalal jàmm ah coach jambon lañ koy wax ah jambon. jambon jambon ah. ah j'y arrive ah nee ah, koy wax ah moom c' est un boxeur c' un ancien boxeur ah. léegi la mais damay laajte parce que y' a combien de genres de boxe déjà. ñaata forme boxe moo am dañuy wax boxe. à donc euh, am na plusieurs façons boxe. Mm fait am na boxe thaï. Mhm. am na kickboxing. Mhm. donc am na boxe anglaise am na boxe française donc euh, vraiment euh, boxe yi bëri nañ mhm. yow ban nga ah. ciy donc man damay def boxe française. di entraîneur de boxe euh, anglaise. di aussi entraîneur de de judo. Mhm. am na image yoo xam ne tàttan nañ ko am na yoo xam ne dama koo sàcce ci moom damay bàyyi ñu seetaan ko après ñëwaat ci plateau bi waxtaanee daal boxe en général aujourd'hui dañu dem seetaan ko ñëwaat ci plateau bi. macha allah waaw gis ngeen ko loolu ay image la woon nga xam ne dañ ko taataanoon ci kër su jàmbong mais Modou Mbaye dafa mel am na lu ñu dab ci plateau bi dañuy continuer wala ñu xaar am na lu ñu dab ci plateau bi xam naa rek mhm. bu ñu defee signe nañu yemb nañu daal koy song mhm. mais coach ñu wax ci carrière élément bi mhm. te dégg nga lay wax ñu wax ci carrière bi Aïcha Fatima ah, bu ñu doon ñëw sa jaar jaar coach fan la jaar gis nañu tamit ngay entraîné ay champion yoo xam ne ay champion du monde ñi nga xam ne dañuy raaga yaakaar ne dañuy jël ay coups yu mhm. donc man sama papa policier la woon. Mhm. donc ñu dëkk école de police. donc yaroo entre Mermoz Sicap Karak Sicap Amitié 3. Mhm. donc école police nag ñu amoon fa benn papa bu ñuy wax bu Aydara. donc euh, yàlla na yàlla may gudd fan. donc mu ngi ñëwoon. amee salle foofu école école de police. Mhm. donc depuis tant xale. donc ñu ngi dem def foofu judo ñu ngi dem foofu def foofu boxe. Mhm. anglaise donc yëpp. donc moom moo daal moom moo ñu dugal si temps booy. ñu mm-hmm. dugg si kii mu nekk nag sama passion. Mm-hmm. mais boxe doon na loo xam ne ne ku jóg rek def ko ah, par contre karaté da ngay def ay coups on t'apprend comment te protéger. waaw boxe am na yoo xam ne coups yoo xam ne day dal. karaté par exemple dañ la naan coup bi war a jege mais waru laal. mais boxe da sentir ne carrément coup bi da koy laal. Mm-hmm. tey jii est mais ñëpp mun nañ def boxe boxe ku dégg box da ngay fone dafa dafa dafa violent dafa violent mhm. mais c'est pas ça mhm. da ngay gis suñu salle am na fa ay pas yoo xam ne donc ils ont 65 ans soixante-dix ans ñëw dañuy an ñëw di entraîner. donc juste défoulement la. donc day tax ñu décompresser. ah donc euh, vraiment ku si mel ni euh, Fatima nga ñëw. ku si mel ni moo di mbay tey nga ñëw dem liggéeyi. xam nga donc soo liggéeyee toute la journée am pression am yëpp. am stress donc am nga ñëw salle de sport. ñëw entraînement ñëw le fait que ngay ñu takkal la gant. donc euh, ngay dóor si si loxo yi nii. di la jàngal lan la ñuy dóoree direct lan la ñuy dóoree crochet lan la ñuy dóoree uppercut. loolu yëpp aussi sa décompresse en fait. donc c'est une façon de se défouler en c'est une façon de de se défouler. donc soo xoolee France léegi la plupart. la plupart presque 60 pour cent 70 pour cent léegi dañuy def boxe en fait dañuy ñëw si sali yi di def boxe donc vraiment donc euh, sport le Euh, comme yëpp sport. Mhm. donc euh, voilà. waaw ah, tey bu doon wax ban ban ban ban ban athlète ban ban boxeur moo la gën a marqué sa carrière wala ban combat nga def bu la gën a marqué sa carrière lan ngay wax téléspectateurs yi. donc euh, gis nañu. def nga def nga compétition. waaw def mhm. donc voilà ma daanaa seetaan Tyson. Mhm. a nu mu gàttee woon. xam nga ak nu mu daajee donc dafa dem dafa ay gars yoo xam ne donc dañuy def ay deux mètres. ah cent trente waaw donc day ñëw day ñëw doon leen crochet uppercut rek ñu daanu. Mhm. donc yooyu daal vraiment. mais lu ko mayoon loolu lu ko mayoon muy battre ñoo xam ñoo ko suut. waaw mais loolu gëm sa bopp nekk puncheur nangoo liggéey aussi. ñeme entraînement. Mhm. donc loolu moom mooy nit ki sportif moom su ñeme entraînement rek fu mu a yegg dina ko fa. mais est-ce que est-ce que boxe tey aujourd'hui on doit juste travailler les mains là wala de là à boxe nag. est-ce que du boxe sax xol bi nga war a gën a defar. non boxe xam nga donc euh, sport bu complet la. complet la ok mhm. sport bu complet da ngay da ngay gis ay footballeurs sax. Mhm. la plupart des footballeurs léegi. Mhm. ngay dem Angleterre wala France ñëpp dañuy def boxe. ok donc voilà day tax. nga travailler sa cardio. Mhm. day tax nga travailler say loxo. Mhm. say déplacement aussi tout ce mhm. qui est musculaire yooyu yëpp. da koy liggéey ko est-ce que dañu defal eh, euh, da ngay dafa am nu ngay donc mun nga taxaw yéegal say garde nii. pour protéger day protéger fi a protéger si kaw. donc commencer là là là. déplacement xam nga donc lii yëpp ay. ay déplacement la déplacement lañ quoi day travailler yëpp quoi ce corps. day travailler yëpp quoi cinq jours. Boun Mbaye est-ce que duñ la bàyyi nga démontrer. ku may démontrer. yow doo démontrer maa gis ngay ngay di day bouger. non dama la rek xare naa ci foo mi. mais buñ doon wax tamit ne boxe Sénégal. parce que Sénégal la discipline. non Sénégal est-ce que boxe avancé na fi. waaw non boxe nag avancé wul. parce que tamit aussi euh, gis ñu ne euh, licenciés yi bëriwuñu. Mm-hmm. donc ay six cent et quelques licenciés lañu. Mm-hmm. Mm-hmm. donc voilà mus naa six cent sax deux S. donc seen euh, sey di ko ne benn ring rek moo am si Sénégal bi. Mhm. moom la ñuy partagé ci région yëpp quoi. Mhm. donc loolu c'est pas normal. ah donc mun nañu. pour yow lan mooy freiné lan moo ko freiné. lan moo ko freiné mooy. Euh, euh, déjà loolu bokk na le fait mu am benn ring. benn ring waaye manque de moyens aussi. donc manque de moyens. donc il faut que aussi euh, gars yi jàppale Sénégalais yi parce que ñu bëri bëgg nañ def sport. sport de combat. donc nañu yokk saali donc yokk gars yi jox ñu plus de moyen pour mun a liggéey quoi en fait. parce que ñi passionné bëri nañ trop si dëkk bi. Mhm. bu ñu ñëwee tey jii sa sa mais doguma la mais coach. Mhm. bu fekkente ne tamit comme yow. Mhm. ak yeneen coach yi nga xamante ne xarañ nañ ci wàllum boxe bu fekkente ne dañuy bàyyi réew mi dem à di fa évoluer. est-ce que aussi boxe Sénégal dina mën a avancer. waaw comme jamono ji moom mu ngi mu ngi France est-ce que tey jii Modou Mbaye day lancé appel pour ñu ñëwaat Sénégal. waaw waaw waaw non mais am donc pour ñuy ñëw mun a am. Euh, ay association wala place bi aussi. pourtant le Sénégal am na benn champion du monde j'ai eu à faire benn plateau ak moom. muy Souleymane euh, Gueye je pense. Souleymane Mbaye waaw Souleymane Mbaye waaw invité woon naa ko parcours d'un ah, champion. <laughs> parce que yow Mbaye nga sant Souleymane a ah. tourné woon ak moom benn émission. moom am na benn ring bu bees mu ngi nekk Almadi. Almadi waaw waaw. sauf Fatima doguma la am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko. waaw on allo allo déggante bi leerul lool alo waa déggante bi leerul xam naa dina dugaat léegi léegi mm-hmm. Fatima acay bismillah am na beneen beneen oh, Mm-hmm. au-delà de la boxe am na beneen discipline bu nga xam ne dugal nga ko muy self défense. self défense tamit sénégalais yi gisuñu koy faral di ko def. waaw waaw donc euh, loolu donc euh, genre formation yooyu bi nga xam ne. Mm-hmm. Euh, def naa ko France. Mm-hmm. donc à la gendarmerie. donc dañuy former ñi nga xam ne dañuy jël matraque. télescopique donc di ko di ko nan nga koy dóoree donc fan nga koy doore et puis self défense aussi donc nit ki si yoree paaka nan nga koy désarmer. Mhm. nit ki si yoree pistolet nanga nga koy nan ngay éviter nan ngay éviter nan nga koy désarmer aussi donc waaw waaw voilà mun nga ko éviter mun nga ko éviter donc waaw pistolet ah. parce que lii xew lii xew fële mhm. euh, euh, Nouvelle-Zélande mhm. donc amoon na ñu dem jàngee affaire bi rek mun nañ moytu affaire bi bali bali waaw bal puisque gaaw na ko. mun na gaaw nañu mais am na façon bu nga koy bu ah, exactement. Ah. exactement bu ñu amee expérience bi. waaw su ñu amee. expérience parce que tey tey waa ji di tirer. donc xam mhm. su fekkoon ne am na si ñi ñi nga nekkoon foofu. Mhm. mun nañ ne ne menace. suñ leen menace. ñëpp dañuy sëgg si suuf. Mhm. loolu si formation bi lay jàpp bu leen fa fekkee nag. c'est des termes roose nag. waaw nag. Ah, moom kenn mënu si dara quoi. Mhm. mais su fekkee ne dafa tiré dafa jubal nii direct. bu dee paaka nag mun ma que yoroo paaka ñu def expérience bi. maa xamee <laughs> mais ma agresseur la wala sàcc la. <laughs> yow des fois doo may jël paaka nu may dox ci mbedd bi nga yëkki-yëkki ne paaka ne ma nii. Fatima yooyu bu di wax si bi. waaw ah, mais dama koy wax si télé <laughs> <laughs> léegi dañuy pare ci loolu wax ci lutteurs yi déjà. waaw làmb. waaw parce que kii dafa am ay lutteurs yoo xam ne jaar nañ ci. moo yor Sa moo ko yoroon moo ko yoroon. non pas yoroon. waaw mais yaa ngi lakkatu de coach. non lakkatuma ah. lakkatuma. mais dañuy wax ci lutteurs yi quoi côté boxe. waaw tey gis nañu lutteurs sénégalais yi. ñuy def boxe tey bëriwul. waaw tey lan nga leen di wax par rapport à ça. ak ñenn nga xam ne ni tey jii am na ñoo xam ne jot nañu jaar ci yow. waaw def discipline bi. donc. Euh, bon yenn tër nga jot a travail déjà. waaw waaw voilà donc euh, xam nga dama dafa am euh, benn benn euh, entraîneur boo xam ne mu ngi nekk si corniche bi là. Mhm. donc xam na ko. waaw mu ma jox def uh-huh. donc boo xam ne mu nekk kii nekk Guy. Guy waaw Guy ok Guy. presque mun nañu wax ne moo ma yar depuis temps xale. Mhm. moo sama sœur bi nga xam ne sama grande sœur. ñoo bokkoon école. Mhm. depuis temps primaire. Mhm. donc euh, Rama Diabon di ko jaale sama famille xam nga sama grande sœur la mhm. ko yàlla xëy àjjana. donc euh, moom moom ñoo bokkoon classe. donc may dem dem olympique di fa fekk ay lutteurs ku si mel ni Balla Gaye ku si mel ni Sa Thiès ku si mel ni Modou ah, donc euh, su ma ñëwee ma gis mu leen entraîné xam nga ma ñëw jàppale ko si. donc noonu laa xamante que yenn lutteurs yi donc voilà comme lu may pratiquer sport de combat. ah donc moo tax ma xaw a ma bëgg làmb mhm. mhm. donc moo tax chance boobu laa am xamante fa lutteurs foofu mhm. donc di leen def cours de boxe quoi macha allah ah, mais lutteurs sénégalais yi nañ tamit dañuy utiliser boxe lu bëri en fait tey jii soo gisee seen déplacement est ce que loolu tamit du doon frein amul ah, mënutoo noonu mënoo leen conseil tey jii de temps en temps ñuy def euh, sport de combat yi am na solo par rapport à ça parce que làmb dafa ànd ak boxe exactement tout simplement bodybuilder bi nga gis nga lutteurs yi. il faut ñu jàng box parce que euh, pas boxe sur le ring. parce que boxe bi nga xam ne mu ngi xew si ring. nuyoowul ak at bëre ak lutte avec frappe. donc euh, lutte avec frappe bi il faut que nga calculer aussi ne da ngay bëre. donc mais lu ngay jàng si boxe yëpp da koy jàng si si si si wàllu wàllu xeex. donc lan la ñuy dooree direct. nan la ñuy dóoree uppercut nan la ñuy dóoree esquive nan la ñuy dóoree uppercut nan la ñuy def esquive esquive dafa am ñaari esquive dafa am esquive latérale ak esquive rotative esquive latérale bi mooy ñu nit ki suy direct nan nga koy esquiver moom mooy esquive latérale donc am na nu ngay dóoree ay crochet moom mooy esquive rotative mooy nga wàccee wàccee wàccee kii bi donc voilà mais lutteurs yi dañu war a jàng di boxe des sax di nga mbër bi boxe mhm. mu ñëw si arène bi mhm. combat bi def leneen mhm. xam nga donc gis nañ ko si combat bi nga xam ne am na euh, contre Modou Lo at Balla Gaye gis nañ ne xeex nañu mais c'était xeex à l'aveugle waaw voilà voilà donc war nañ gën a mun a maîtriser euh, ki box bi dina leen jëriñ. Mhm. les protège-dents balaa ñoo terminer. donc protège-dents. Mhm. donc dafa am ñaari protège dans parce que depuis depuis euh, depuis bu ko CNG waxee. dafa dafa dafa baax. aussi day protège seen bëri. bi rëy na bi rëy na di exemplaire rek quoi. ok mais na am na. am nga benn pour am naa benn pour yow. yow loolu day protestant xeex xeex yow koy xeex man boxeur. <laughs> yow tapé bu ñu la nee génn ci doo génn. donc donc donc voilà mais lii dafa dafa dafa am solo. Mhm. parce que il faut que lutteurs aussi. Mhm. xam nan lañ koy sole. Mhm. donc dafa am ñaari type de protestant. dafa am bi ba nga xam ne moom mooy protégé. ci kaw si kaw waaw bi. donc waaw voilà bi double la donc bii day protégé ci kaw at si suuf. donc voilà. mais bii coach est-ce que di nga mën mais bii voilà moo tax ñu bëri duñ koy tàmm di utiliser. Mhm. en fait d'habitude bii la ñuy tàmm di utiliser. bii nga xam ne dañ koy kii mais balaa bii la balaa nga balaa nga kaa sol da nga ko war a mule. waaw waaw ba mu nooy bu mu nooy. na natt ko waaw voilà mule bi nan lay demee mule bi dangay jël sa benn casserole. Mhm. tàngal ndox bu mu tàng. Mhm. nga jël protège-dents bi sotti si. si sottee nga calculer 40 secondes. donc nga daal ko. dugal si ndox mi sedd bi tuuti rek. daal di ko ngam ba mu jël sa forme nga daal di xamp ko bu mu bu mu bu mu nooy su fekkee kiiwul euh, demootul noonu nga dugalaat ko si ndox bu tàng bi kiiwaat ko si kaw. ba keroog nga am ba keroog nga xam ne di nga soxla. Mhm. si boobaa di nga si mën a respirer si boobaa di nga si mën a. bëre mhm. donc saa ngay yàbbi ko. ton daal te c'est conseiller ñi jël protège. c'est conseiller. a ah, kon si kon ñu lan la lan jeexalee kon. waaw lu may jeexalee mhm. mooy. donc euh, di ñaan waa CNG. Mhm. ñu gën a former arbitre mhm. si wàllu. Euh, geste au premier secours. Mhm. waaw ñu ngi ci doon wax geste au premier secours. yaa ngi ci doon wax waaw voilà exactement. parce ñu bëri xamuñu ko ñu ko. tey da ngay gis ne suñ dóoree coup. nit ki mun na daanu def malaise. war nañ arbitre war nañ jàngal nan la ñuy defee geste premier secours nan nga koy tëralee. donc euh, kuy saigner. kuy saigner du nez. lan mhm. nga koy geste bu ngay war a def pour kii ko quoi donc pour. Euh, macha allah éviter ko mu kii quoi. donc voilà du nuyu waa Sénégal. Mhm. donc du nuyu. Euh, sama xarit yi Modou mhm. Mbaye ah du nuyu waa 2STV yëpp donc vraiment ñu ngi leen ñu bëggee. ñun diaspora bi moom rek la ñuy seetaan donc euh, vraiment di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sama maam nag aussi mu ngi may seetaan mhm. <laughs> sama maam Rama donc yal na ko yàlla may gudd fan di nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw Sénégal yal na fi yàlla def jàmm mhm. jaajëf mënuma terminer sans remercier Seydou ah, sama styliste bu bees bi ah mooy pont lan la wax sax PDG pont yéen xam nga ko de waaw waaw PDG PDG la. PDG ah maa ngi ah, bi ah pont du Sénégal loolu moo wax. du Sénégal loolu moo wax merci beaucoup ah maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar waa Thiadia yëpp comme d'habitude ah di jaar si moo fi jaar à chaque fois. coiffure ah, chaque fois moo si moo si fi indi woon tey mardi bi leen jox rendez rendez mardi prochain. inchallah toujours seen rubrique sport ah, fii si 12 13 ans. jaajëf kontaan ci ñoom bu baax a baax Fatima Silla ak coach Diabong merci. maa bu baax a baax merci nañ ci ñoom bu baax a baax dafa mel ni dafa am ku nekk ci ligne bi ah Rokhaya amul ku nekk ci ligne bi waaw gars yi bu fekkente ne mën ngeen ñu may clip ñu songu deuxième partie bi le temps ñuy jot ki nga xamante mooy suñu père Moussa Gningue ci téléphone bi ayca jaajëf bëggee nañ ko bu baax a baax coach Diaba moom ak Fatima Sylla ñoo fi teewoon ci première partie bi mbokk yi ñuy waxtaan ci tàggat yaram waaye deuxième partie bi jot na nag xam tàmbali nañ ko nag ak xale ceece mbere. moroom ak toocu foofa xar rajax tëmb Sirsa Sirsa tey day gaaw. waaw Sirsa tey day gaaw ah nuyu naa am chers téléspectateurs amati ah, comme d'habitude ñu ñëw fi nga xam ni mooy émission bu mag bi émission de pause de détente de divertissement ah. axale ci ci mberem boroma tooc waa di souhaiter un joyeux anniversaire à Ramos papa Ramos depuis HLM. Ah, sama sama càmmiñ la sama xarit la yow loo dund lu nekk rek doyul ak Galas depuis Thiaroy maa ngi la souhaiter happy birthday de lu bari. yow calendrier nga yow laa di lu ma ci man. influenceur yëpp nga xam waaye yow Père Moussa Gningue li di def non man c'est que yow xam nga yaa ma yëngal ndax dama ñëwoon pour araftu la déem laa jàpp kaay nga yemale ma nga ñàkk tooy xepp joxe information ba pare daal di daanu <laughs> non mais damay dénoncer li nga xam ne mooy site internet yi li ñuy def li baaxul bàyyi leen di yóbbu fit ah ni ngeen def sama waa ji tey jii neexuma dara mi ngi nii ah papa moo ko dëkk bi ñëpp woo ko téléphone dee leen vérifier information war na bàyyi di ma woo si télé bi sa papa da lay de près sa papa <laughs> mais am na solo macha allah ñu ngi koy ñu ngi lay bëggee bu baax baax. Ah. deuxième partie bi. waaw ñu ngi fii dalal Karim Xurum Xaax. Karim Xurum Xaax kenn dootu ko présenté ci Sénégal man ma koy présenté xaw ma lu may wax sax. Karim Karimu Sénégal la ñu ngi lay siyaare di la nuyu. maa maa ngi ziar maa ngi lay ziar euh, bi sista maa ngi ziar bu baax a baax nuyu téléspectateurs yi. Mhm. di ñaanal rek bañ fi wax lu ñuy xebee. waaw mhm. amin tey li waral nga teew fii. mooy jéeya wala jëf ju ñaaw ji nga xamante ne ni am na ca Nouvelle-Zélande. muy jàq ju ñu dugg. Mhm. fekk fa ay jullit papa ak doom ak ku ne nekk ci biir. Mhm. benn nit dugg fa. def dafa ñaawteef boobu dugg fa rey fa. te bu doon jullit moo def loolu tey àdduna tax na. dëgg la tey yow sa sa looy njëkk wax ci loolu. waaw d'abord d'abord dafa dafa am lu am solo loo xam ni. boo seetee ak diir ay trois ans deux ans avant. Hmm. doon nañ ko xeex muy wàllu terrorisme Sénégal jàpp bi ñu jàpp Mame Alioune Badara. doguma la dafa am ku nekk ci line bi ñu jël ko allo allo allo. waaleykum salaam papa ñu ngi lay siyaare. waaw. per père man la Modou maa ngi lay siyaar bu baax. père maa xëy fajar teel gis site internet li ñu wax ci yow Sénégal ñëpp di ko ñaawlu man mii maa ngi soog a yow damaa xëy rek ñëw wax ko ma nit xaw ma lu xew sam papa ma woo ci en direct ne ma dindi li nga wax te xam ne loolu amul ñu ngi lay paas sa papa Moussa ñu ngi léegi ñu ngi lay nuyu waa Sénégal ñu ngi lay nuyu papa mhm. ni ni ni ko diggee rek. Mm-hmm. daal ko laa ko déggee waaye man waaye ma maa ngi koy déggee ci une heure une heure et demie. Mm-hmm. matin. Mm-hmm. léegi nelawuma. waaye nag loolu moom dama koy caa dama koy teg rek ci njuumte. njuumte la njuumte la rek. njuumte la loolu loolu loolu loolu dara daal. macha allah. di leen jógewaat sama jaar rek. day loolu mën naa am njuumte am na. moo tax rek. Mm-hmm. te ko. yenn saa yi waaye ñi ngi ñi ngi bokk ak yow loolu wax dëgg yàlla metti na nag naqari na nag parce que xëy fajar teel tëdd nekk sa jàmm ak sa njaboot. site internet yi xëy wax loolu ñu wax wax dëgg yàlla ñun tamit ñu ngi ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax te di ko ànd ak yow bu baax a baax. ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di kontaan ci yow papa di la ñaanal nga yàgg fi nag ci barki yonent bi waaw dundal yow sa dund am na njariñ jërëjëf ñu ngi loolu rek lañ ci bëggoon nga teew Sénégal ñëpp xam ne yaa ngi fi macha allah. jërëjëf ñu ngi. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf macha allah macha allah am na solo Rokhaya jërëjëf macha allah loolu Sophie am na solo jërëjëf jërëjëf papa guddal fan ah guddal fan ba yàlla bàyyi la fi sunu kanam ba ngay jiite njaboot yi ah. Mhm. guddal fan lu bari bari bari. ba tax na ñi ngi jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Karim xurum xaat am na ah. fu mu nekkoon fu am solo mu am fu mu nekkoon fu am solo ñu bàyyi la nga continuer rek. waaw par rapport euh, li nga xam ne mooy wàllu euh, euh, attentat bi xew fële. Mhm. terroriste bi xew Nouvelle-Zélande. Mhm. bon ñun comme xam nga ni Sénégal yëpp xam nañu ñun dañuy yëngu ci li ñuy yëngu diine moo ci ëpp mm-hmm. cest à lépp lu laal diine bi rek ci valeur la xeex donc valeur boo ko waxee diine day ñëw mm-hmm. euh, kenn mënul wax valeur te waxoo diine religion donc ñun te ñun ay musulman lañ mm-hmm. dañu yàgg xeex affaire terrorisme Sénégal mouvement nitu dëgg day xeex di wax ni Sénégal amul terroriste parce que dañ fi jàpp ay imam Alioune Badara Ndao tëj ko ñetti atu yàlla ci kaso bi ci nekkoon di xeex di wan ñi ñi ne terroriste au fait amul religion mhm. mais àdduna dafa dox boo tax ñu raison tey Mm-hmm. par exemple tey li xew New Zealand boo ko mm-hmm. xoolee da gis ni ki def loolu mm-hmm. ban diine la nekk te loolu te dafa nekk xam ne da liy fësal ñoom dañu bëgg gëm ni gëmloo ñu ñi ne que diine rek moo am terrorisme au fait terrorisme au fait ignorance la nit ku xamul la bokkul benn religion cest à ki ignorant ba nga xam ne xamul parce que ignorant mooy ku xamul ñàkk xam mooy indi peur mooy indi ragal parce que su ma xamulee Mourou naa laa ñeme léegi euh, mooy indi kii nag genre révolte parce que nit bu ragal après day bëgg dindi li mu ragal day mhm. indi révolte révolte nag mooy indi violence mhm. loolu moo waral problème bi yëpp mhm. léegi ñun dañu bëgg pépp jullit cest à il faut mu leer parce que benn ab Baye Fall ab Mourou Mbaye wala ab Abdou Karim mën naa gis waa ñu ne rey na ay musulman rek mu yaakaar ne waa ab chrétien la daal dem fële ci église ba fekk ñi ngi di julli donc moo tax communication bi def ay manifestation def communication ci télé yi leeral leen ni terrorisme au fait kii amul diine. Mhm. kii nit ku réer la. Mhm. kii amul lenn loo xamante ni amul benn religion parce que prophète Mohammed daan wax naan bu leen jëm ci xare bu leen laal église. Mhm. bu leen laal xale bu leen dagg garab c'est que yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante il faut nit ñi xam ko tey. Euh, li ñuy def dañuy def benn manifestation bu mag benn mobilisation bu mag grande mosquée terrorisme bi nga xamante ni mi ngi lëmbee àdduna te jullit au fait ñoo ci gën a lom macha allah donc loolu moo tax ma ni damay rek comme sama waaye nga mën naa ñëw ci émission yi mhm. émission yi nga xam ne surtout nag jeunes yi ñëpp ñu koy seetaan parce que au xamuñu seen diine mhm. mooy catholique bi muy musulman bi mhm. jàkk dafa wét il faut ñu dem ñu xam suñu diine ba nga xam dañu réer ñun ci ay comme erreur yu bari yi gis nga erreur bi ñu def léegi ci paa ci net bi même erreur yooyu la def ci wàllu yëpp mm. dañuy dégg tël rek ne damm na mm. dañuy am lu ndaw lu benn nit mooy def benn commentaire commentaire kese kese mm. toj na àdduna Rwanda par exemple waxu rajo moo taaloon Rwanda génocide bi benn waaye moo wax ci rajo wax Rwanda tàkk donc yooyu dafa nekk ay yoo xam moo tax communication al population bi mm-hmm. wax leen ñu xam expliquer leen dem mm-hmm. gëstu ji indi information yi mm-hmm. dajale mag ñi dajale xale la ñuy def loolu moo tax ba tey moment où je vous parle nii am na benn waa ji ñuy wax Moustapha mm. mi ngi ci kaso bi ñu tëj ko jiñ ko terroriste deful dara. Mm. am na benn imam Dianko cinq ans avant euh, imam Alioune Badara ko jàpp. Mm. insuffisance rénale am insuffisance rénale am mi ngi si kaso bi. président si yëkkati yóbbu hôpital indiwaat deful dara. Mm-hmm. tey yàlla xam na ne deful dara. Moustapha Diatta par exemple juge bi da ko jugé bàyyi ko ne demal procureur defaat recours ko. yaa mi ngi m ngi feebar. mi bi toog imam na. jabaram dem mi ngi toog ci kaso bi fenn hmm. te yooyu sénégalais te comprendre ñu ni tey imam jànku tëj boobu ñu ko tëj noonu yow yaay fay courant bi nga koy bi nga hmm. kii mooy fay lekk ba muy ñëw ñun ñooy cotiser di fay pénitencier yi koy toppatoo hmm. donc ñun yàlla yërmande bi mu war wàcc ci ñun mi ngi nekk ci xaafisu alxuraan yi ñu tëj ci kaso bi yàlla yërmande bi wàcc ñun mooy église yi waruñu fay courant jàkk yi waruñu fay courant ndox te yooyu il faut ñun ñu comprendre ko pour mën a waxtaan ñi ba suñu njiite respecté ñun suñu conception idéologie nga xam ni moom la ñuy gëm ñun ñu koy dox fu am solo foo xamante ne mm-hmm. yi mm-hmm. Sénégal coow li surtout ci côté élection yi coow li dafa bari woon ci côté murit tijaan xaadir laayeen tey nitu dëgg lan mooy taxawaayam ci loolu waaw pour wax ni xam nga xam tey Serigne Touba Serigne Touba dañ ko exilé sept ans mm-hmm. te diine bi rek moo taxoon Alaaji Malick mhm. résidence a lañ ko dama laajte te diine taxoon diine taxoon c'est-à-dire léegi ñun man benn Mourou Mbaye moom bëggul sax wax ci diine bi dara lu ñu koy saaga sax nangu ko engagé wu ah, il faut nga jël responsabilité nga taxaw wax leen ku nekk ca la la neex yaa nekk ca la neex waaye Serigne Touba ñàngaleem leer na nañ mais malheureusement ñun ñoo sàggan ba gisuma benn mbàkke mbàkke mhm. xam nga problème di am nii ñu naan murid tijaan problème di am parce que gisuma benn mbàkke mbàkke bu ndaw wala bu mag bu ne nañ jël xasida Serigne Touba yi ko ci ministère de l'éducation xale yi jàng ko ci école yi à bas âge kenn ku ne nañ jël xasida Alaaji yi ñu ko ci njàngum école yi xale yi xamuñu ko ñun xamuñu Serigne Touba cegefera nga xam Mm-hmm. kan nga xam Malcolm X nga xam mm-hmm. parce que moom la ñu tubaab bi di góorgóorlu Victor Hugo te Victor Hugo boo ko toppee Charles Max Hugo Max ñooñu boo leen toppee ñoom ñëpp mais xoolal ñooñu ci ëpp ay góor jigéen lañ ñi ay franc-maçon mm-hmm. te ñun bu ñu amee ay valeurs yu mel ni ñooñu noonu te jàngalu ñu ko mais ñoom ñooñu réeral ñoom ñooñu réeral loolu moo tax mouvement nitu dëgg loolu moo ko créé c'est-à-dire expliquer nit yi ñu comprendre te fépp gis nga gis nga Modou Baye su ma amoon tànd beer mën faa dugg 4 minutes ñu àll micro bi ma wax lii dama koy def hmm? amu fu amu fu ma fu ma dul dugg pour nga comprendre ko am na solo mais dañu seetlu suñu dirigeant islamique yi mhm. ba léegi dañoo yàpp ci li nga xam ne mooy jàkka yi ak li nga xam ne jullit yi dañ fay regroupé wu est-ce que mhm. amuñu ba tey mënuñu trouver système de sécurité ba nga xam ne sécurité ba nga xam ne ñoom war nañ ko mën a mettre en place ci loolu dëgg la dëgg la si xam nga xam nga dirigeant xam nga affaire responsabilité la rek hmm. xam nga kilifa diine responsabilité la rek man Abdou Karim Gueye kilifa diine la Modou waaw dama ko gëm Mm. waaw parce que lu laal diine laal na ma. Mm. dafa may jaral ma dox ci wax ci. gis nga gaañaan bi rey Euh, nu mu tudd euh, yi fële la ci am àjjana buñ ci dee dañ ci am àjjana te dee amu ci mm. lacrymogène sax sénégalais nangu koo dékku téel nga daw ba faqastalu daanu kii pare na pour pour dee ci tooñ ay nit pare na pour dee parce que dafa dafa tuité ni moom peuple am la bëgg dimbali moo tax mu def li parce que xamul dans l'ignorance mais li mu def mais ñun est tamit jéem a fexe def ay manifestation mobilisation ay waxtaan jug ndax suñu mu jaral ñu comprendre waxee waaw si mais li mu def que boo seetlee seetlu nañ canadiens yi ak mhm. xam ne loolu diine l'islam c'est que loolu moo koy doxal mm. c'est-à-dire que l'islam loolu yonent bi moo ko wax l'islam lu ñu koy gën di xeex muy gën a jóg salaa salaam loolu nag mooy dëgg xam nga canadien xam nga waa New Zealand lu ñuy def ñi xam duñu duñu musulman dañuy dugg si jàkka yi góor mag ndaw xale di xaar julli di julli ñu toog seen wet oh. ba ñu julli ba pare surveiller leen ne ñoom ñëpp dañuy dañuy dañuy dañuy oh. bu yàggee amaana sax tuub mën nañ leen ca donc sax bu wax ne ni loolu yàlla buy defar day mel ku yàq mais am solo ci communication mooy Sénégal de mi ngi tooñ yoo xam ne ay xaafisu alxuraan la ñi ci kaso li am solo mooy nañ toog ñu waxtaan xamal ñi ngi ne ki def loolu du catholique. Mm-hmm. gëmul yàlla. Mm-hmm. catholique yi ci ñun lañ bokk. waaw ñoo ñoo ma far waaw dañ leen xamal ne ki def loolu ah bu ñëwoon Sénégal mm-hmm. di rayaate jamono Serigne Touba. bu duggee ci jàkka mën na faa fekk Serigne Touba ndax Serigne Touba kër ci jàkka la daan jur. mën na maanaam ñu jël suñu responsabilité man kilifa diine la xaaruma benn kilifa diine amul kilifa diine bu ma gën nekk kilifa mais nag terewul damaa jébalu damaa gëm sama sëriñ am naa sëriñ gëm ko mhm. mais damaa xam ni man tey man maa doonu sëriñ Tuubaa ci wàllu weneen wàllu mhm. keneen ki nekk ci weneen wàllu bi gérer wàllu waaw mhm. te loolu am na solo mais fii ba tey biir Sénégal naka nga gisee ku taxaw pour défendre l'islam wala ku taxaw pour dool gën a dooleel lislaam taxawal association wala nangam ak nangam. Mhm. ñu dagg sa tànk. dëgg la dugal la kaso gis nañ ko ci yow. à chaque fois boo génnee def benn affaire. Mhm. ñu jàpp ana Karim ñu ne mi ngi. si kaso loo gisee loolu yow. waaw mais sant yàlla rek ma parce que dama sàcc. wala ma rey nit wala ma def loo xam du dëgg. Mhm. wala ñu mbuxum parce que mi ngi fees dellu ci dëkk man dama bëgg pour man jàngal sénégalais yi ah dañ bon pas jàngal sax mais maanaam li ma jot xam ku sub tuut mais wan leen ni xubuwatu min al iman mhm. rasul sallam ko wax maanaam gëm sa réew ci gëm yàlla la bokk mhm. xeexal sa ci gëm yàlla la bokk mhm. léegi nag il faut ñu gëm ni comme li wax sànq nit koo xam ne taxaw na ne moom day kon di rey ay nit ba pare pour dee ah moom jaral na ko ndax pour sauver peuple am rek ñun diine l'islam war nañu jaral jaral loolu kese la bu ñu fi fekkoon ñun nii xare badar kon rasulullah am ñu mën a xeex. parce ah, que yonent bi ndax xam naa ne ñun ñun gisuñu ko xamuñu ko. te ñoo ko gën a bëgg. ñoo ko gën a bëgg ñooñu mu nekk lool. kon damaa xam ne ñun buñ ko fekke woon tey saa yi. kon juif yi wala ñay a affaire a amee problème ah. kon daan nañ si yéen bu baax a baax di jox dig daje ëllëg mais ñuy tàggatoo gi. waaw tàggatoo bi daal sister ah, mm-hmm. euh, ak frère mooy. Mm-hmm. ajuma mm-hmm. ñi ngi woo ñëpp incha allah association imam yëpp ligue des imams ñoom ñëpp ñi ngi fa ay ligue des imams euh, Mouride action Euh, comité de défense des valeurs morales. ANCA mm. ñëpp ñoo xam ñu ngi yëngu. Euh, euh, à chercher de maîtres coraniques ñëpp ñoo booloo. Mm. ñu ngi invité chrétiens yi bu ñu jullee àjjuma grande mosquée fa la ñuy mm. nekk. ñaxtu li nga xam ne dal na julli si fële ci New Zealand. toogaay ñaxtu lay doon bu kenn taara dañoo bëgg ñëpp gis ni Sénégal manifesté wu na ndax lii dal suñu mbokk jullit yi képp ku julli di kese dafa woon ilham jami alwara kon képp ku yor bakkan rek ñi ngi lay ñaan nga teew foofu bisu àjjuma lay doon incha allah man fa laay juma incha allah maa ngi lay déggee incha allah comme ni mu ko waxee rek nañ fa demoonoo ñun ñëpp parce moo ñu ñor l'islam moo tax ñu nekk fi dëgg neexul incha allah kon vendredi ñi ngi foofu nga xam ne mooy buntu grande mosquée euh, di di di ñëpp ah, di jox di daje di leen wax bon reçu a programme. te site internet samay partenaire lañ. maa leen di bëggee baax baax. site internet yi da leen vérifier seen.